mahad hikmatul mi li tarbiyatil islamiyya wa taalim markaz Cheikh Ahmad Bamba Touba Daaru Tanzil ak mahad hikmatul yawmi li tarbiyatil islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mahamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière di ñaari internat yi nga xam ne ni waa daara hikmatul mi jot nañ ko ubbi ba donga yi di ci jàng ñoo leen di may xikma bii seen numéro téléphone nag ci ñi bëgg a jokkoo ñoom ngir laajte xibaari daara ci walla ñu andi fi seenu njaboot mooy 77 633 77 56. tey ñu fas yéene andil bu amati solo te mooy dëppale ko xew-xewi jamono niñ ko baaxoo defee xew-xewi nag dañuy dellu ci waxi sunu borom tabaaraka wa taala ci suuratul baqara aaye téeméer ak juróom fukk ak juróom ba ba àgg ci aaye téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar aaye boobu rek la waa àdduna di dund jamono yii ndax suñu borom tabaaraka taala dafa wax ne danaa leen nattu ci mbir yu wuute danaa leen nattu ci tiitaange ak xiif ak alal yuy wàññeeku ak bakkan yuy wàññeeku ak meññeet yuy yàqu waaye yonent bi bu boobaa naka bégal muñkat yi kat mu ne ko mooy ñan mu ne ko mooy gaa ñi nga xam ne nii bu leen suñu borom tegee nattu yi yëpp lu mu diis diis dañ naan ah ñun kat yàlla ñu moom fa lañ jógee fa la ñuy dellu kon lu ñu teg rek noona la ndax yàlla du jaawale du juum mu ne ko ñooñu nag mooy gaay yi nga xam ne ni suñu borom tabaaraka taala dana leen sotti dem ak njëggalam àdduna ak àllaaxira ndax ay woy jub lanu wax ja mooy aaudu billahi min alsheytaani arrajim wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci wa naqsi min al amwali wal anfus wa samarat wa bashir sabirin allazina isaa asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sadaqallahu alazim mbokk yi ku xam ne ne nattu yi nga xam ne ni moom la suñ borom tegale moom la jamono di dund waa Sénégal it kenn demul ñu des jël nañ ci seen wàll ba mu doy sëkk waaye biñ ciy nga xam ne moo waral ñu bëgg cee def xikma mooy sunu jarbaar yi ak sunu rakk yi nga xam ne nii dañuy jël mbëkk mi wala boog ñuy jël gaale loote yi jëm Europe te jaaree ko fa ñuy wax Barcelone donte leer léeg am ñu ci dem Barsaq waaye Barcelone moo leen tax a mbokk yooyu nag dañuy ñoo xam ne nii danañuy faral di déglu sunuy xikma kon ñoo ngi ñaan ku ko dégg ku nekk nga jottali ko sa mbokki julli sa mbokki taalibe ba mu àgg ci ñi demagut ndax lee ñu bañ a dem fomm jaar feneen fu gën a wóor wala ñu def leneen wala neneen nu gën a wóor kon li ñuy def encouragé wuñ ci kenn ndax wóorut ndax ñun duñ ko def te ku ñu tàggu itam doo ko def waaye nag lenn rek lañuy def tey muy jaale leen lool ak ñeewantu leen ndax daw na yaram lool dañ leen di jaale te di leen ñaanal nag suñu borom tabaaraka wa taala ma nga xam ne nii day yërmandeem ja ëpp na mbindee fi àdduna ak alaaxira yàlla na leen muur mbalaanum yërmande ak njëggal tàbbal leen jannatul firdawsi li tax may wax loolu yi kat di leen ñaanal mooy dama cee xam ñooñ kat ca bitim réew dama leen xamoon sax lu jiitu ñuy ñëw bitim réew ma xam leen ci ngor xam leen ci diine xam leen ci ak taalibe xam leen ci jom moo tax bañ fa ñëwee kat ba agsi ci jàmm ma xam ne ah ñii day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala musal nañu am jom dama jàpp ne itam kenn jógut ngir rey sa bopp loolu moom jàpp ma ko waaye nag ñi ñi dem ñëpp ñi àgg ak ñi àggut ñëpp àgg lañ bëggoon ñi àggut it kenn ku nekk dafa boole woon boppam ci ñiy war a àgg donte xam na ne am nañu dut àgg itam te yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci hadis ne nit ku ne lam yéene la ko yàlla di jàppal innama al amalu bi niyaati wa innama li kulli mri'in maa ah kon nag dama yaakaar ne jóguñu ngir xaru mbokk yi xaru lu yomb la ki jóg ngir bëgg a dee koñ ba nekk taalibe ku gën a jege man nafaayam bu ci yàlla àndee mu ray boppam wala mu dem ca raay ba wala mu dem feneen waaye kii waaj jël xaalisam bu bari joxe ko dugg ci ak gaal yóbbu ay lekkam ak i naanam yum yaakaar ne du fi jeex yor ay mbalaanam yu muy sàngoog lu ne mu yor ko gaal yi ñu dugg ñu def ci ay essence yu dul jeex ak ay machine euh, monté ay moteur yu bees ak ñooñu man jàpp naa àgg lañ bëggoon waaye xaru taxu leen woon a jóg te lañ yéene nag jàpp naan moom da leen suñu borom tabaraka wa taala di jàppal kon nañ leen ñaanal njëggalug suñ borom tabaraka wa taala ak dem waaye ñi demagut tey dégg sunu kàddu rekk waaye bu leen jaar foofu yi baaxut de wóorut timit ndax dëgg la wuti baax na lool senegal métti na lool rawatina ci ndaw ñi waaw ndaw ñi sonn nañ lool waaw képp koo xam ne ni de li ñuy dund dundoo ko ah coono bi ñuy jànkonteel mën na la um waaye fu coono yam rek àgg nañ fa rawatina nag ñi nga xam ne ni ñoom am nañ jom am nañ yërmande ci seeni way jur yi leen jur ñooñu de ñu sonn lañ kon nag dañoo war a gëstu ci li waral ñu di ko def boo defee jéem a saafara loolee jéem tee sunu kamtulaahi kàttan loolu mooy wax ji mbir mu ne lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole kon nañ seet te li yëngal mbëkk mi ñu dee ñu jéem koo faje foofe foofu kat lay mën a wéree loola nag gouvernement bi am nañ ci wàll wu yaatu wu rëy kilifa diine yi am nañ ci wàll way jur yi tamit ak kilifa yi ñëpp ci am wàll kon kenn ku nekk na jéem bay waaram rek waaye ngir ñu sowe xale yi waaye ñu fexe ñu jàpp ci dara loo xam ne nii kat seen xel dana mën a dal